gannaaw loolu xam ngeen ne ci firi mi ñuy firi suuratul fatiha naa ngi toll woon ci firi ihdina siraat al mustaqim ñu nekkoon ci ajjuma ji weesu di firi baatu ihdina lu muy tekki ci fatiha ihdina gisoon nañ ni dafa am lu mat nangami maana am na ci ay maaneem bokk na ci ñeenti maana yoo xam ne tuddoon nañu ci ñaar waxoon nañu ne bokk na ci ay maanim ihdina allimna wa arshidna wala allimna wa dullana yow suñu borom yàlla yàlla na nga nu jàngal yàlla na nga nu tegtal te wonnu yoon wu jub wa yàlla na ko yàlla defal ba bokk na ci ay maanim waffiqna yow suñu borom bi yoon wu jub wi ba xam ko yàlla na nga nu tawfiqal ba nu mën caa jaan yàlla bu la xamalee ba nga xam yoon wi waaye may mayu la tawfiq doo ci mën a jaar loolu moo tax am na ñoo xam ne xam nañu te la ñu xam duñ ko jëfe mbaa lañ cee jëfe bariwul loolu kon maanaam ñaareel mi mooy yow suñu boroom yàlla yàlla na nga nu tawfiqal ba nu mën a jaar ci yoon wi nga gërëm maanaam ñetteel ma nag mooy ban bay xaari maanaam ñetteel bi mooy sabbitna wala urzuq na sabaata yow suñu borom yàlla boo nu jàngalee ba nu xam siraatal mustaqim nga tawfiqal nu ba nu nekk di ca jaar yàlla nag nu may jaar gañ cay jaar nu sax ca te nit ki dina xam siraatal mustaqim nekk di ca jaar waaye jaar bi du sax bu bee mu sawar bu bee mu tayeel bu bee mu góorgóorlu bu bee mu yaafus bu bee mu dëngal bu bëggee mu def bu bee mu def lu jub ku sawar ak tayal sax moom mook doomu aadama ànd te tayal ku lay tayal loo ci jaamu yàlla moom baaxul tayal ci julli bokk na ci mandargay naafeq ida qaamu ila salaati yàlla na ci loolu waaye lii tayal rek mooy dëng bàyyi fi yoonu yàlla wu jub bi di def leneen te xam nga ne yoon waa ji nii te du te bu jaaroon nga ci démb te bu ci bu ëllëgee dañ ci jaaraat waaye tey moom yaa ngi koy jàdd jàdd-jàdd yooyu mooy ak ñàkk sax yal na nu yàlla may ñu sax ci jaar ci siraatal mustaqim xam ngeen ni bokk na ci xeeti ñaan yi ñaan googi bokk ci al adiyatul masuura allahumma inna nasaluka sabata fi l amri wal azimata ala rushd yow suñu borom yàlla noo ngi lay ñaan yal nag nu may nu sax ci mbir mi mbir mi mooy jaar fi nga bëgg ko fi jaar yal nag nu may nu sax ci jaar bi muy jaar ci fi nga bëgg ko fi jaar yal nag nu may nu jaar ci fi nga bëgg ko fi jaar te yal nag nu may jaar ga nu sax ca te itam yal nag nu may ñu dogu ci rek dogu ci te bañ di def di di deng deng bu beenu dox bu beenu taxaw may na nu dogu ci rek te dogu ci dox bi loolu ci ñaan yi la bokk ñaan googu am na ñu ne ci yonent bi la jóge sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne itam déet xadis bi ko askan ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daif la ala kulli xaal ñaan googu daal li mu ëmb mooy maanaam ñetteel ci maani ihdina as-sirat al-mustaqim mooy nga ñaan yàlla gannaaw bu mu la xamalee sirat al-mustaqim tawfiqal la ba nga di ca jaar wërsëgal la nag nga sax ca jaar nga sax ci dox bi yal nañu yàlla may loolu maa maanaam ñeenteel mi nag te bala maa weesu foofu maa nga leen nga xamal ne ñaan googee ma doon ñaan sa borom yàlla mu tawfiqal ma ba ma bind ko andil leen ko bind naa ko ba indi naa ko Maodo Dieng mu ngi ci mbooloo mi yor na ko koo ci xam ne ni soxla na ko na ko ko laaj mooy ñaan googu nga xam ne moom la Abu Salamata doomu Abdurahman ibnu Awf radiallahu anhu eh, laajoon sunu yaay Aïcha ni ko في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موسى جنجل أنا لمدا أبكو اي فيلم مكبرة بلا ما تملي جان لمدا دفع افتتاح دعاء افتتاح حمد لون منك بباوح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم لا نقول نعم، نمي تك موي يو يو يالا يو ميغا خامنا ياي بوروم جبريل جبرائيل موي جبريل تي اي نيت او ترم لا يو ميغا خامنا يا موم ملاك مو ري موي ني واخ جبريل تي تام يا موم آه، ميكائيل يا موم اسرافيل te yow dong yaay ki nga xam ne yaa sàkk asamaan yi ak suusi te itam yow dong yaay ci xam li faddu xam li feeñ yow dong la yaa xam xaybu maa ngi lay ñaan déedéet yow yow yaay buur bi nga xam ne yaa xal seeta ak te sa jaam ni yowmal qiyaam bu yowmal te werante wu bari lii ñuy werante ci adduna ñii naa yoonu yahuda baax ñii naa déedéet oo nasaraana baax ñii naa déedéet oo lislaam ci biir lislaam bi tam ñi naa yoonu baax mooy yoonu sàngam yoonaa yoonu sàngam ñi naa suma yoon rek a baax ñen ñu nekk ñen ñu nekk di di bàkku di di di xas di la fa ñal naan bu àllaaxira nun ku bokk sunu yoon nangam na ci ñaar jaar fee wax leneen ku bëgg sunu yoon da ngay ñëw fi yow yàlla bu àllaaxira yaay atte ñëpp yow mi nga xam ne yaay atte ñëpp te yaa xam dëgg te kooko wante tawfiqal ko mu jaarta maa ngi lay ñaan ihdini yal nag ma gindi yal nag ma gindi xamal ma jubal ma nu ngoog yal nag ma gindi ji ma jaar ci sa dëgg ga li moxtalifa fihi min alxaq dëgg googu ñuy yoreen ci kenn ku ne naa maa ko yor yow yaay xam ku ci yor dëgg gi kon nag yal nag ma won ñi yor dëgg ga boole ma ca ñoom ma ànd ak ñoom mu ngoog innaka tahdi man tashaa ila siraatin mustaqim yow yaay jubal ku la neex mu jaar ci yoru jub wa xam ngeen ne googu ñaan ñaan gu am solo la jamono ju nekk dañ ko soxla waaye rawatina su jamono ji nu toll nga xam ne woote yi daa bari wuute yi bari mu ngoog bàkku yi di bari kenn ku nekk di wax wax yi mu ngoog dafa mel ne waxi sa borom yàlla te mooy alquran te waxi sunna te waxi sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak jëfam te mooy sunna dafa mel ne léegi day bëgg a réer ndax coow yu bari yi te lu wuuteeg alquran ak sunna du dëgg xataa ci biir alquran ak sunna sax dafa am ay wuute ci ni ko borom xam-xam yi dikkee laa bëgg a wax ni koy koy jàngale nit ñi ak ni ñu koy wone yàlla nag moom mooy ki nga xam ne bu ëllëgee ñëpp danañ teew ci kanamam kenn ku ne la nga doon def mu ne lii ak lii moo ci baax yàlla na yàlla suturaal bis boobee balaa keroog yàlla na yàlla teg ca yoon wa ñaan goo gi na ko ñëpp mokkal te mën koo firi te xam lu muy tekki te di ko ñaan ci seen ñaa buñu kabbare ci rakka bu ñëk bi ci julli guddi bala tam tàmbali jàng fatiha yalla na yàlla tawfiqal maanaam ñeenteel ni ci maani ihdina mom al imam ibn al qayyim al jawziya andina ko ci tafsiram bobu ñuy wax at tafsir al qayyim limu wax hadi sayhaadi hidayati martabatu al kubra wa hiya وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة وهو الصراط الموصل إليها فمن هدي في هذه الدار في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هنالك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. هنا معنى من كلمة في معاني اهدنا الصراط المستقيم mu ne mooy maanaam mi ci mujj mu ne maanaam moomu mooy yow sa borom yàlla bu àllaaxiraa yal nag ma may ak sax ci kaw siraat yal nag ma may su may jaar ci siraat ma jaar ci ci kaw ànd ak sax comme ni ngay ñaane yàlla bu la xamalee fii yoon wu jub wa may la tawfiix nga mën caa jaar waaye itam mu may la wërsëgu nga man cee sax bañ di dang-dangi wala ngay jàng-jangi bu allah xeetam yan nag ma may ma sax ci kaw loolu mooy lan loolu mooy li mu wax ne képp koo xam ne ci adduna jaar nga ci yoonu yàlla wu jub wi te mooy li mu wàcce ci yonentam yi te yonent yooyu bi ci mujjoon mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu ko yónni jox ko ko mooy alquran ak sunna ci la nekkoon moom ak ay saxaabaam képp ku nekk ca yoon woowee te jaar te jaar bu jub dang-dangi woo nekkoo di doxo ko taxaw ko jàdd ko dellu si nga jaar te jaar bu jub bu àllaaxira boo demee ci kaw siraat ca ngay jaar dem aljanna waaye dañ ca jaar jaar bu jub doo dang-dangi doo rëng-rëngi kon boog yal na nu yàlla may ak sax ci kaw siraatal mustaqim yal na nu yàlla may ak sax ci kaw alquran ak sunna ci adduna wallaaxiraa yal na yàlla may تقو تقو kaw ak ci kaw siraat ba ba ñuy وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم من النحكة صراط المستقيم جيغا خمد موم لا يالا سامب نجار لنتي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه yàlla dafa teg aw yoon yoon woowee mooy alquran ak sunna alquran dañ koo wàcce sunna ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunna yi dañ ko wàcce lépp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom yàlla nag ne sama yoon waag noo nii di alquran ak sunna ñu ngi jub xoj ci jaar leen ci topp leen ko te bu leen topp ay ñal mu ne bu àllaaxira yoon woowu la ñuy fab ko aw yoonu jëmm def ko ab pom mu jàll ko ca kaw naari jahannam kenn ku nekk da nga jaar ca ci kaw yoon woowee ñi nga jaare woon ci adduna ci siraatal mustaqim kenn ku nekk lu toll na ñi nga jaare woon ci alquran ak sunna noonee rek ngay jaare ci kaw siraat yowm alqiyama aha وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على te itam ni mu doon doxee ci kaw yoonu siraatal mustaqim ci kaw suuf ci adduna noona nga tey doxee ci kaw siraat bu àllaaxira aha ومنهم من يمر motax itam ni nga xamé na nit ñi dañoo wuté ci ni ñi doxe ci l'islam dañoo wuté ci ni ñi jaare ci alquran ak sunna ci aduna dañ ci mënante dañ ci gënantee do jambar ñi dañoo jambar bu baax ñi jambar tuuti ñi doon ay yaafus ñi doon ay kaccoor ki sàmba boy bu àllaaxira itam noona la ñuy jaar ci kaw sirat né motax da nga gis ñoo xam bu ñuy jéggi siraat su ñuy tambalé ak su ñuy àgg aljanna day mel nag melax dañuy gaaw lool boo boo xoolee booy booy booy yéex rek dem nañu ba yàgg baag aljanna yal nañu yàlla boole ca ñooñu loolu ko bëgg da ngay nangoo jaar ci alxuraan ak sunna jàng ko ba xam ko te tënku ci te góorgóorlu ci yàlla na ci yàlla dimbali am na ñoo xam ne dañuy gaaw bu mel ni melax am na ñoo xam ne seen gaawaay matul ni melax waaye nag gaawe na ne fi bët di xefe ak fi muy xippee fi bët di xefe ak fi muy xippee xam nga na yàggul waaye am na ñoo xam ne seen gaawaay ci jaar ci saraat dem na noonu lay gaawee am na ñoo xam ne ñi seen gaawaay àggul foofu waaye nag daañ ci jaar gaaw ni ngelaw xam ngeen ne ngelaw luy naaw xam ngeen ne gaaw na mu ngoog su ma ko na la misaal ci roplaan guy naaw xam ngeen ne gaaw na am na ñoo xam ne dañuy yor gaawaayu ngelaw mu ngoog yi fël daal di àgg am na ñoo xam ne nag duñu àgg foofu dañuy yor gaawaayu fas wuy daw gis nga daawaay yi ñu ngi wuutee ñu ngi wuutee ci góor wuutee ci góorgóorlu góor lislaam ci tënku ci alquran ak sunna ci àdduna dong noonu la ñuy wuutee foofee am na ñoo xam ne dañuy daawe ni aw fas wuy daw am ñoo xam ne dañuy daawe ne nit kuy daw am ñoo xam ne dañuy daawe nit kuy waaxu bu baax am ñoo xam ne dañuy daawe ne nit kuy daagu moo jaa mbokki jullit yi siraat ku ko bëgg daagu lépp te moom ab pom la aw yoon la woo xam ne borom xam-xam yi nee nañu yoon la wu gudd woo xam ne daal dañ koo dañ koo teg ci kaw naari jahannam mu am mu am mu am aw tund woo yéeg doxu junniy at tàllal dox junniy at am mbartal doxu junniy at yoon wu yeexe na ko bëgg ku ko bëgg daagu moom foo jëm am na ñoo xam ne dañuy gaawee nit kuy daagu am na ñoo xam ne nii nag dañuy raam subhaanallah jaar ci kaw siraat di raam di raam te raam bu dee siraat ni rëng rëng rëng ngay bëgg a daan xam nga ne kuy raam di jaar ci yoon te yoon wi ab la te dañ koo gàll ci kaw kàmbu safara la ilaha illallah yoon wi léeg-léeg mu ne rëng rëng pom bi léeg mu ne rëng rëng xanaa dala bëgg a daane lu ci yem di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na dafa am ay kalalit ay lu mel ne ay lugat lu mel ne ay ay ay xataatiif yoo xam ne day fëkka day day day day day teqaate léeg-léeg nga gis kuy raam wala muy dox ba mu yàgg lenn kenn ci yooyu kalaalib yooyu teq ko teq ko mu daan te mu daanoo ñu nga ci naari jahannam wala teq ko mu ne rëng rëng bay bëgg a daan mu bàyyi ko léeg-léeg yoon wi ne ngay yaatu lool léeg-léeg mu xat lool loolu lépp kat dañ koy natt ci ni mu doon doxe ci kaw suuf rek ci àdduna ñu doon doxe ci islam ci àdduna nam góorgóor la woon ci yoonu jàkk ja nam góorgóor la woon ci woor weeru koor nam góorgóor la woon ci jàng alquran nam góorgóor la woon ci joxe àllam te yàlla tax wutu ci ku ko gërëm wutu ci ku bañ ci koo xas nam góorgóor la woon ci jokk bokk nam góorgóor la woon mu ngoog mboolem xeeti santaane yi nam góorgóor la woon ci roy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ay ay ay pas-pasam ak i jikkoom ak i waxam ak i jëfam nam la woon ci tënku ci sunna nam góorgóorlu woon ci jëfe alquran ak sunna ak nam ca gaawante woon nam ca jàmbaare woon noonu lay gaawe ci kaw siraat ñee ne ak melax daal di àgg ne xefat xippi ñee ne ngelaw ñee mel ne fas wuy daw ñee mel ne nit kuy waaxu ne nit kuy daagu ñii nag di waa joo xam ne ji yow bu ñu nekkee ci jàkk ji di jàng di julli nga dégg allahu akbar sami allahu liman hamidahu nga toog ci grand place ci digg penc sa diggante jàkk ji mu wóor la ne sa diggante sa tool moo ko gën a sore fop te bis bu ne nga dem toolee ndox dem ndox del delsi sa diggante jàkk ji di dara ñu wax allahu akbar ba asalaamaaleykum nga toog di waxtaan rek xaw ma da ngay jëw xaw ma da ngay lay def yow mën a def da ngaa war a ji noddu boobee xam nga ne yow ab yaa fus nga xam nga ne yow ab yaafu xam nga ne yow boo yéegee ci sarax bu jékki-jékki rënd rek nga war laa bett yal nañu yàlla jéggal yal nañu yàlla jubal aha mu ne ne na nga doon jaare ci siraatal mustaqim ci kaw suuf rek na nga doon jaare ci alquran ak sunna noonu rek ngay jaare ci kaw siraat mu nga kiis kiis ñooy yem ket dañ koy natt mu yem ca ket fay la ko ko defe woon rek mu nga kenn la fay dul la nga defoon آه. ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط من أنك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلاليب يوي لونك يوي أي لونك يوي خمني مم لوخني مم لنسمكو ci diggante ñaari weti yoonu siraat ay lonk ay lonk yu féete wetu gi wetu ndeyjoor ak lonk yu féete ci wetu càmmoñ di lonk ñenn ci nit bi di leen xëcc di leen cëqatal di daanu ci biir naari jahannam mu ne lonk yooyu mooy subuhaat yi ak ak ak ak shahawaat yi mooy subuhaat yi ak shahawaat yi ci adduna lu toll ne li nga toppoon ci subuhaat yi lu toll ne li nga toppoon ci ay shahawaat lu toll noonu ngay am ci say lonk kenn ku nekk say lonk yi bopp lonk bu ne daa am koo tax a jóg aha bu fekkee na bi sa li ngay topp subuhaat yi li ngay topp lënt lënt yi ci diine lënt mooy loo xam ne lii ñii dañ ne dagan na ñii ne araam def mu ngoog nuur na lu dagan nuur na lu araam daana ko leeral ci kanam incha ak li lu toll li ngay topp sahawaat yi lu toll noonu rek ngay am poosé ci ay lonk yu lay lonk mu ngoog aha du tooñ kenn aha moo tax ba ñaan ak njub ëmb na ñaan mboolem yiw adna ak alaxira yal na nu yàlla ma hidayah ci siratal mustaqim aha ayyuha in hadha al kalam qad awdaha lana mas'uliyya mbokk jullit yi wax ji nga xamne mom la sayyid al imam ibnu qayyim wax te lépp ñu ko jël ci hadith yi bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu baax baax ni ndekete kenn ku nekk ci ñun buy jaar ci siraat da jàll bu muy jàll bu gaaw wala mu jàll jàll bu yeex wala mu daanu ci kamb gi ndekete ajuwut ci tariqa bi ndeke ajuwul ci doonub tijaan mbaa murit mbaa doonub ibadurahman wala salah ajuwul ci yooyu ndeke ajuwul ci xam-xam bu bari mbaa mbooloo mu bari ndeke ajuwul ci juddu mu ngoog ndeke ndeke ajuwul ci alal ju bari joo ci def yàlla bëgg ndekete mi ngi aju ci lu tol nan nga doon jaar ci yoon wi te itam ndekete kenn ku ne am nga responsabilité ci jaar goo fay jaar dem bu gaaw ngay raam ay lonk di la xëcc ngay bëgg a daanu di yafandu kenn ku nekk bu fekkee ay lonk bi la faa lonk loola yaa ko defoon fii ci adduna ndekat kenn ku nekk na nga fay jaare yaa koy jëf fii ci adduna aha yal na yàlla musal ci safara yal na yàlla musal ci lonk yooyu di xëcc nii daal ci naari jahannam aha أوضح أن الكلاليب التي تقصده وتعوقه يومئذ على المرور على الصراط أنها الشبهات والشهوات. من لا النبوة باخ باخ ci wax ji te a wax ji am na ci lu lu sëriñ Haadi tëpp ndax nee na lonk yooyu am na ñoo xam ne danañ jàll naam waaye bala ñoo jàlle lonk yi dañ leen di xottee xotti ci seen tànk yi seen loxo yi buñ buñ jàllee àjjana itam fekk bar nañu ay xoosu xoosu lool ndax lonk yi di leen xotti fu ne tànk yi nàcc loxo yi nàcc moo jaa ndax lan ndax ay subuhaat yuñ toppoon ak sahawaat subuhaat ak sahawaat day àggul ci dugal leen naar jahannam waaye nag sonal na leen fiitloo na leen jàq na leen ndax yëngal na siraat ba tàyyi te itam lonk yu xotti na seen seen yeel yeeg seen loxo yi yëpp ñu door a jàll am ñoo xam ne ñu nag ñoom mu kardas lañu dañ leen di dañuy dañuy tënk loxo yi ñaar loxo yi lañuy ñuy takk boole ñaar tànk yi takk sànni si biir naari jahannam yàlla na si yàlla musal mbokk loolu nga xam ne moom la sëriñ bi wax leeral na bu baax a ni kon شبهاتي shubuhat لما ak shahawat فشبهاتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا yi sayyiduna سيدنا محمد alaihi wasallam في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام حديث قال إن خمني بخاري أدنى سيدنا نعمان بن بشير صلوكو رضي الله عنه mu ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na li dagan yàlla leeral na ko ba mu leer naañ ñi yomb naa xam booy dem ci alquran ak sunna di ko xam li araam yàlla leeral na ko ba mu leer naañ ñi yomb naa xam booy dem ci alquran ak sunna di ko xam nee na seen diggante nag am na ay mbir yu lënt yoo xam ne boo ko xoolee da lay nuru ne mën naa am dagan na léeg-léeg mu ne ah lii ko dafa nur lu xaraam seen diggante ay mbir nga fa yoo xam ne dafa lënt mu ne mbir yu mbir yu lënt yooyee ku ko moytu bañ caa tabbi xanaa la la wóor ne araam na waxi noppi koo xam ne ci lépp lu lënt lu ñuy si gisaaka dagat naag araam na da ngay ko da nga koy daal di jàppee lu araam rek daal ko fay ba xam ne dana màtt du màtt bul jox sa loxo nga ba ko fa ka fa bàyyi la ko wóorul dagat naag araam na la ko wóor ne araam na waxi noppi moom la fay gën a bàyyi yonent Yàlla Muhammad may wax di sallallahu alayhi wa sallam noonu nag koo xam ne kii nag da ngaa dem lënt yooyu nga xam ne wóoru dagan nag araam na nga féex ba day jàpp ne ah ginnaaw ginnaaw ñu neew ñu lii man damay ànd ak ñoo dagan na dagan na daal koy def caaxaane ko wayafal ko booy dugg ci araam yi doo ko yëg mu ne mi ngi mel ne rek koo xam ne kii da ngay sàmm xam ngeen ne mos ab sàmm bu yor nawa wala naya naya wala xar ya te nar a jubal day dem ci digg mbooy ga waaye dem ca digg wa aw sàmm ak aw ab sàmm buy sàmm ca digg lee mu ruural borom tool ba am déet kon boog subuhaat yooyu di lënt ku ci dugg lee nga dugg ci maxaarimullah yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na buur bu ne am nga xima fooy tere bañ ko fa dugg nee na suñu borom yàlla fi muy tere bañ ko fi dugg mooy yi mu araamal képp koo xam ne kii sori nga ko sori yi lënt yi nga xamul araam nam dagan na da nga waaye koo xam ne kii yaa ngay dem di def yu lënt li ñu sukki arab nag dagan na yaa ngi mel kuy e, sàmm ciw dig yaa ngi borom sallallahu aha أما الشهوات فقد خرج الإمام البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره من ينكال محمد صلى الله عليه وسلم من الحديث بوخاري صلى الله عليه وسلم ci lu aju nag ci shahawaat yi te mooy bànneex yi yonente la Muhammad nee na sallallahu alayhi wa sallam ajjana ak safara benn bu ci ne des koo ñag mu ne safara dañ koo ñage ay bànneex yu neex rek lool te yu neex lool te bari jëfandikoo gi araam na wala boog jëfandikoo ci lu bari mën naa andi lu xaraam ajjana it dañ nag moom liñ ko ñage mooy yu sonle te metti mu ngoog ñaar yooyu su nga suñ borom yàlla bi mu sàkkee aljanna sàkk safara ñàkk leen ñaari ñàkk yooyu bàyyi ba jibril ne ko demal seeti ñaari kër yooye jibril ñëw xool aljanna ni mu neexe xool safara ni mu mettee mu ñëw ne ko sa borom aljanna day kër googe day neex na neexaay boo xam ne kooko wax wax ko na mu mel dëgg dëgg dëgg xaw ma nu muy sàggane ba du ba ba du ca dem te safara itam metti na metti koo xam ne képp koo xam ne xam na ni mu mel doo soit dem mukk ba di ca dugg sa borom yàlla door a ñeg ak coona coono yi jaamu yàlla coono yi bàyyi li nga bëgg te def li yàlla bëgg coono yi muñ ay nattu c'est-à-dire safara ci ay bànneex lekk lu lekk riba mu ngoog lekk riba sàcc ubbi butiku jaambur wala sàcc faso jaambur wala xam nga ne moos nee eh, ngeen xaalis léegi kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti subhanallah am ak million boo xam ne da nga caa kat kat liggéey ko nan demee ak door koo am ak million boo xam ne da ngaa tapp waaye jël ko wala da ngaa fexe fexe ba jël ko ci alal jàmbur ci kaw nax ko wala ëpp koy fexe wala ëpp comme xelte léwut alal ji bari jooj yi nga xam ne ban bànneex rek tax nga def ko wala jigéen joo xam ne tëkkoo ko nga fexe ba mooy ak moom yàlla wala yu mel noonu bànneex yooyu moom la ñu ñage naari jahannama daal di ñage safara ay ay coona yàlla yebalaat jibril jibril ñëw wër àjjana gis ñag yi wër safara gis bànneex yi ko wër ba mu delloo dana saa borom man de àjjana xam naa ne ku nit dugg fa ah! balaa faa kenn dugg de man de xaw ma foofu fa dugg ndax ñag yee safara moom mu ne ko mën de xaw ma fee nu see mucce xaw ma fee nu def si mucc tayee dem jàkka ji tayee julli julli gu baax kabbar iblis na da ngaa yàkkam ci xaw ma nu si def ba mucc ci قال في الفتح الجزء الثامن عشر صفحة 317 فإن المراد بالمكاره هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه ورم فتح الباري بشرع آه، آه، بخاري نانا لنا خمنا مؤمن نمو تمكاره موي يلين سنت معنا دي آه، كون يلين نجا الجنة موي سنتاني بورام دي يلين كو سنت يمو سنت دوم آدم أنا كو نكو يدف تو متي لو متي كي مم غي أب door a am lu neex wolof yi nee nañu bala mu ne nux nux na war war loolu du lépp wolof bala mu ne nux nux na war war du wolof loolu war war du mooy lu metti nux nux du mooy lu neex bala mu ne nux nux lu na war war mooy bala ngaa dem aljanna sonn loolu ñun sax xam nañ ko dañuy tey tey lu dong bala ngaa dem aljanna da ngay riifa yoonu jàkk da bay bëgg a dee da ngay julli julli gu teey da ngay jàng alxuraan njàng mu wóor da ngay fekk sa bët bi doo ci xool mukk jigéen joo takkul sa làmmiñ yu doo ci jëw mukk sa làmmiñ yu doo ci fen da ngay sa biir bi doo ci dugal lu araam mukk sa pay mi doo ci see jigéen ju takkul mukk sa tànk yi doo ci doo ci dox mukk yoonu yàlla seen tànk um tere umu tere doo dem mukk di sàcc àll jaambur doo daj bi dugub jaambur doo doo doo doo sàcc nagu jaambur baa fasu jaambur doo def lenn lu yàlla tere bala ngaa am alal da ngay liggéey bay bëgg a dee nu nga coono yooyu nga xam ne doo lekk lu dul lu lew te bu woor jotee nga woor te nga muñ ko te bu julli jotee nga julli te bañ a julli ga coono yooyu mooy a dem aljanna bala moo bala mu ne nux nux na war war mu nga mhm. الاستجلال بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها واجتناب المنهيات قولا وفعلا waaw nit yi nit yi euh, fexe ba ibaadaat yëpp nga def kon ni ko yàlla bëgg bu dee julli nga julli julli yi ñu yàlla bëgg ndaxte julli am na julli am na julli koo xam ne gii da man mel na ganaar koy lekk dugub nga nga cofet cofet cofet cofet julli goo xam ne gi bokkut ak julli goo xam ne gi da ngay kàbbar dajale sam xel dajale say xalaat mu ngoog xewlu eh, yàlla bu baax tari tari bu teey daal di rukkoo rukkoo bu teey sabbal yàlla bu baax siggi siggi bu teey mu ngoog te seytaane dee ñëw naan la ah sa baraada ba nga tegal fee ba ngay bax sa gan nga de ñëw na lu ne mu fàttali ko ndax bëgg nga gaawantu te kat day jëkk ñëw de jëla tere naan la tee nga àggal li julli waxtu wi des na ni seytaane ab saay la waaye bu ko wuyu neel bërit jóg te boo dem boo nee jë boo jógee ba dem jàkka ja boo demee booy julli julli julli gu bu ko yàkkam ci muñal mu ne te bokk na ci itam yàlla tegeef nattu nga bañ a jàmbat bañ a ñànki muñal moo tax fan yii grippe bi bari na dégg naa dégg naa mu ngoog noo ngi seet waa dëkk bi bépp képp ko fi grippe noo ngi lay seet dégg naa grippe bi bari na lool waaye nanu muñ te bu kenn jàmbat bu kenn ñanti ñun ñëpp nañu wax alhamdulilah rabbil alamin te ñun ñëpp nañu muñ te xam ne yàlla ku mu teg feebar tegalu ko ngir soxar ci yow am na lu mu la ko tege mu ngoog te la daloon araab yi baag yonente bi bu mu nu dal mukk sallallahu alayhi wa sallam yonente bi dafa seeti ab araab yi bu feebar ne ko la basa tahur insha allah ne ko ne ko ne ko ne ko ay lu bon du la dal sallallahu alayhi bi jàmm rek la dalay laabal ci ay bakkaar rek insha allah dalay laabal rek la arab yi ba ne ko xam nga lu mu doon mag moo xam ne mi dem naa bay bëgg a jeex ak feebar ñëw fas ma yéene jàpp rey ma yóbbu ma cee bàmmeele moom rek loolu rek la i eh, eh, moom ni mu bi rafetul baaxul yonent bi ne ko ah kon boog ne noonu loolu la ko yonent bi tontu kon boog ne noonu ca ëllëg sa mu dee yal nañ ci yàlla musal moo tax ku feebar bu mu jàmbat muñal ngir yàlla da ngay muñ natt bi la yàlla teg muñ ba doo jàmbat muñ ba def li la yàlla sant muñ ba doo def li la yàlla tere yal na yàlla dimbali ci jëtti muñ yooyu waaw jàllal boobu boobu do ko waaw wa min jumlatiha as-sabru ala al-musibati wa at-taslim li amri llahi fiha والمراد بالشهوات ما يستلذ من امور الدنيا مما منع الشرع من بان هناك موي ييغا خامنا دا نيه تي سبكن تي يالا تيراكو لول بان نيه موي نيه سبكن تي خامنا يالا داكو تيرا لو كنا خامنا كو اه واما اما بالاصاله واما لي نيه تي يو تي خامنا دا فا ارام ولا ارامول واي دا فا منا ورال لو ارام لب لو خامنا بغان واي بوكو دافا لو ارام دا سي بايكو لول ارامنا نينا يوي ييب اي شهوات بين ورا بايكو أها ويلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح خشية أن يقع في المحرم. tey itam bokk na ci subuhaat yi loo xam ne dagan na waaye nag yow da nga caay xër ba mu ëpp dagan na waaye da nga caay xër ba mu ëpp lu lu dagan lu mu dagan dagan naan mar naan ndox mu sedd kay dagan na waaye nag naana naana naan ba biir fees dell nga xiif lekk lekk lekk lekk ba biir fees dell nga naan ba biir fees dell ba moo too julli. mu ne te lu may boo tëddee boo nelawee da ngay biddanti loolu koy xam nga ne xaraam na waxtaan guddi dagan na waaye nag waxtaan woo xam ne da nga koy continuer ba tax heure ba ngay tëdd boo ko tëddee faaw nga biddanti ndax guddee tëdd waaw waxtaan daganatul lépp lu dagan loo xam ne boo ci ëppalee ëppal ga day indi lu xaraam bu te ëppalee ëppal ga xaraam na أنه قال لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها بالمكروه دافا بغا wax ne kon boog aljanna kenn du fa دار dara da ينو أي تشونا coona safara أي ay من mën na faa dugal nit وهما محجوبتان فمن هتك الحجاب اقتحم ويحتمل أن يكون هذا الخبر وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به النهي أيها المسلمون إذا كان أحدنا أمام أمر اشتبه حكمه أجائز أم محرم فلا ينسى أن ذلك إحدى الشبهات وليتذكر آل إذن أنه إذا اقترف الأسهل عنده فاعتبره جائزا قال باقي يعني بك جلي جي معني لا بير سما بط بير لا بير كيف كواتي خمنا دخنا تخطي نبا أدتي شبهة شبهة موي لي دال من نا أم دغرنا من نا أم أرامي yow man nga demal sa bop ci nusus yi waye da nga dem wal ba ci nusus yi mu no xamé da ngeen rek arane gi wala yow da nga laaj ñii la dagan na ñii la ñii ne la araam na nga xam ne loolu daal lënt na képp koo jo xam ne kii da ngaa taxaw taxawaay mel noonu nii xamal ne subha ngoog am lënt ngoog lënt moom nii imma nga bëgg lu yomb tax nga jàpp dagan gi def ko wala nga def lu gën a wóor ci sa diine jàpp ne xaraam na ba ko su fekkee ne bii bu mujj bi nga def kon def nga lu baax bu fekkee ne bii bu jëkk bi nga def te mooy da seet lu gën a yomb gën a neex ci yow xam nga ne lii lënt na ndax mën naa am dagan na mën naa am araam na yow nga daal di jàpp na kon nag daa dagan naa ko def ndax bu ko diw weddee diw diw diw saxal na ko diw daa tàng diina dong waaye diw moom mu ngox su boobaa ne la wóor ne yaa ngay def subha te itam su boobaa ne la wóor ne yaa ngi def ñaari yëf yaa ngi ñàkk gi ak ñàkk bu lay taxa dugg safara te itam yaa ngi samp ci siraat ay lonk yoo xam ne bu àllaaxira ñoo la xasee te teqatal ndax bëgg laa dugal ci biir naari jahannam yal nañu ci yàlla musal aha tey itam bis boo xamee ne bi yow jullit bi da taxaw ci kanamu shahwa lu neex sa bakkan aha moo xam loo xam ne lii daa neex ci sa sa biir la ñu ki aw ñam woo xam ne daa ñam wi daa neex na waaye daganut ñam wi neex na waaye daganut mën naa dagan mën naa ñàkk dagan ci boppam ndax day yàpp mbaam xuux wala day yà ñam wu lislaam tere ko lekk wala ca waxtu wa ni ki ngay mukallaf ba noppi bu ko lekk bëccëgu weeru koor wala yooyu yëpp bi ci dara da ngaa jël da ngaa sàcc ñamu jaambur da ngaa sàcc ñamu jaambur mbaa xaalisu jaambur jënde ko ñam wala da ngaa sàcc eh, xarum jaambur ren di ko di ko bëgg a xam nga ni lii moomoo ko ñam wi dafa dafa xaraam ci yow wala ñam wi sax dagan waaye nag dañ cee bëgg a jël lu ëpp loo xam ne day tax nga nga def lu xaraam loolu boobu shahwa shahwatul batni la na nga xam ne boo ko toppee yaa nga ñag ji ak ñag bu lay tax a dugg naari jahannam yàlla nañ ci yàlla musal ndax dañoo xam ne ñage nañu naari jahannam ak ay bànneex kon boog lépp loo xam ne bànneex la boo taxawee ci kanamu bànneex fàttalikul kara ba ngay jaar ci siraat yawmul qiyaam xamal ne bi nga bëggee topp sa bànneex yaa ngay samp ay lonku ci ñaari boori yoon wa nga ñaar wa nga nar a jaar ci siraat dem al dem aljanna lonk yooyee na ñoo lay lonk ndekete woo kon boog lonk yàlla nar a lonk yaa koy sabub léegi wala nga sempi ko léegi kon boog nan leen sempi te ba nga sam yal na yàlla dimbali aha allahumma inna yàlla noo ngi tuub ci yow di la jégglu di la ñaan sir ma nekk sa mbaax yàlla nag nu tàggat ba nu mën a yenu ay coona ba mën a dem aljanna ci sir ma nekk sa mbaax noo ngi lay ñaan yal nag nu tàggatal sunu bakkan yi ba nu fee bàyyi lënt lënt yi mën fee bàyyi subuhaat yi ak shahawaat yi yal nag nu jéggal sunuy bakkaar yal nag nu jubal yal nag nu may siraatal mustaqim ci ñeenti maani yépp te mooy won nu yoon wa ba xam ne lii mooy yoon wi nga tawfiqal nu nu jaar ci nga may nu wërsëgal nu nu sax ca jaar ga wallaahi nga boole nu ci ñooy def wif ca kaw siraat dem aljanna bila xisaabin wala iqaab والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا نقبل إن تنعرف وفت كوسرات دم الجنة بلا حساب ولا عقاب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته